الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سماد محمد يقول عبد الله وهو أحمد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همازات الشياطين أعوذ بك رب أن أحضرني الحمد لله الذي بجلاله تم صالحات الحمد لله على كل حال سبحانك لا علم لنا إلا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سعد لساني نور جناني سافي أماني وزيد برائي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يحفظ قولي asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki dëkkandoo yi ak wëllëre yi ak fu waay man nekk ci àddina si dinu seetaan noo ngi lay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen a ngi dajeeg seen xarit seen soppe Cheikh Ousseynou Sy Naaru Borom Touba ci émission bi nga xam ne moom lañ tuddee jàmm du doy fii ci Prestige TV dégg nga di wax ne ñoo ngi ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko de nga koor gi ñu jóg yàlla na ci dugg ci bisimilah rahim te gën ci alhamdulilah rabbil alamin te yàlla def jàmm ci réew mi ak ci àddina si yëpp nuy wax ne ñi <coughs> nga xam ne ñooy waa Russie leen di sant bu baax a baax su ngeen déggee suñu kàddu baa ngeen mën noo gis ñoom la muy ji seen dégg nga ak moon njaay waaye ànd koog Satirna Njoon ànd koog Modou Aïssa Mouride Sadikh dégg nga ak waa Prestige gépp dégg di wax ne noo ngi siyaare bu baax suñu wasila suñu yaakaar te ëllëg sëñ Muntaxa Bachir yan na fi yàgg te wér nga naal bi mu naal yal na ko àggale si barke Cheikh Khadim te nu ànd ko moom noonu la ñu siyaare dégg nga sëñ am nañu sëñ Modou Mbenda Fall moom maam Cheikh Ibra Fall lam Babil Mouridina di ko siyaare dégg nga sëñ Moussa Fall mu sëñ Mbacke Fall mu sëñ Amdi lamp di ko siyaare sëñ Cheikh Ngunda Fall mu Cheikh Salif Fall maam Cheikh Ibra Fall lamp Babil Mouridina noonu la ñu siyaare sëñ Cheikh Ndigal Fall dégg nga mu Cheikh Fall Baye Góor mu maam Cheikh Ibra Fall lamp Babil Mouridina ak sunu xarit sëñ Mbacke Fall mu sëñ Modou Moussa Fall maam Cheikh Ibra Fall noonu la ñu siyaare dee maam Serigne Saliou Touré mu sëñ Saliou Mbacke mu Xaadim Rasoul di ko siyaare dee maam waa Tiawoon sëñ Baye Sy Mansour di ko siyaare waa Cheikh Abdou Aziz dara noonu la ñu siyaare waa Canaba di ko siyaare Laayeen Salsali daa baaxi waa Bit ak Ñaseen ak mboolem jullit fu waaye mën a nekk dégg nga noo ngi lay siyaare waa Daaka bi ñoom ñëpp di ak waa Njaasaan di wax ne yàlla na yàlla defal nu jàmm defal nu wér ak kattan tey jii dégg maam di wax ne nag noo ngi sant bu baax a baax ah, borom kër gi muy kan muy Pape dumbuyaa di ko ñaanal yàlla na yàlla gën a guddal fanam wéral ko kàttanal ko naal bi mu am ci liggéey ko askan wi yàlla ko ci yàlla defal lu koy njortam yàlla lafal ko cat dégg nga yéene bi mu am yàlla na ko ci yàlla defal lu koy njortam dégg nga tu Cees ca kanam gi nga xam ne moom lay jiitee tamit lu mu ci bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke Cheikh Khadim di wax ne nag tey sama njaboot dégg maam laa dajale ñoo fi ñëw tey ak sama xarit sëñ Cheikh Ndiaye dégg maam mu sëñ Mor Ndiaye Daabaay dégg nga ak ki nga xam ne kii dégg maam mooy euh, kenn ku ne xam ko di suñu doom di koo xam ne kii dégg maam muy sëñ Njaga Sekk mi dégg waaye sunu doom bi nga xam ne euh, ñépp xam nañu dégg maam ci njàngam ak taxawaayam dégg maam te baayam ñépp xam ko ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa dégg nga muy kan muy Baay Cheikh Gueye Daayira dégg nga kon su doomam ñëwee fii tey dégg maam ñoom njabootam yépp kon dégg maam dañ leen di sant di leen gërëm di wax ne tey ji ñoom la ñu bokkal plateau bi dégg nga di euh, maa ngi fàtte tur bi di sama ah, doom ji Ahmadou Gueye waaw <laughs> Ahmadou Gueye dégg nga maa ngi jéglu lu baax ke Ahmadou Gueye yéen ñëpp xam ngeen ko du tey rek la mës a ñëw fii du tey rek laa fi mës a invité kon tey ñoom la àndal dénga xam naa ne dama koy euh, jox rek moom mu nuyoo ci ab xasida bu gàtt su ko defee rek des maam ñu doog a dugg ci émission bi kon Cheikh Amadou Gueye bismillah tafaddal mashkour allah waayul samadul wa baaxi subhaanahu wa waaxi mhm. صمد وباق سبحانه ذو كنف وواق ونحن في كنفه المنيح من كل سر وازن سنيع مسلم مستمسكين بالخياس أحمد خير الأنام منتن ومبتدا من خالها في سمن وباء أمنه الله من البلاء من خالها في زمن وباء أمنه الله من البلاء jërëjëf akay jërëjëf sëñ Amadou kon sëñ Amadou Gueye ngi noonu nag Amadou Gueye xasaayit kon su ko defee rek xam naa ne dañuy jox Euh, sëñ Cheikh Ndiaye moom mu nuyoo su nuyoo dégg maam xam naa si lu gàtt rek ñu soog a ñëw ci sëñ njaga doog a dugg nag ci émission bi kon sëñ bismillah euh, sëñ Cheikh tafaddal mashkur asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi ziyaara sunu xalifa di sëriñ Habibu Ndiaye Dabaay di jël ziyaare boobu di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci loxool xalifa général kullu murit di sëriñ Muntaxa di leen ñaanal suñu borom yàggal leen fi te wéral leen ba naal yi ñu naal ñu man ko àggale tegalaat ñu ci ziyaara bi ci loxol xalifa général kullu Baay Faal di ko ñaanal moom itam yàlla yàggal ko fi di ziyaara sëriñ saalihu Touré mu baax mi di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi di ziyaara itam sëriñ Abdullahi Njaay mum Seex Mor Njaay daabaay di ziyaara sëriñ Jiili Njaay mum Seex Mor Njaay itam sëriñ Omar Njaay mu sëriñ Abdu Seex Mor Njaay daabaay di ziyaara sëriñ Abdullahi euh, mum sëriñ Basiiru sëriñ Seex cuun njaay ñoo ngi koy ziyaara di ziyaara itam sëñ alpha mi nga xamante ni mooy sunu bunt ci kër Cheikh Mame Ndiaye Dabaye di ziyaara itam sëñ jiili rakkam di ziyaara itam sëñ Mouhamadul Fadal di ziyaara itam sëriñ xaadim ak ñoom soxna xujja ak soxna kenn ñëpp ñoo ngi leen di ziyaara di ziyaara sëñ As Guèye ak soxna Abi Guèye ak soxna Tuuti géey ñëpp ñoo ngi leen di ziyaara tubaarkalla tubaarkalla Euh, kon euh, dégg ngeen ni mu ubbee dégg maam kon njabootu sëñ Mor Ndiaye Dabaye yëpp bàyyiwu ci kenn dégg nga waaw kon yal na yàlla guddal fan ñu kon su ko defee dañuy jox sëñ Njaga rek moom moom tamit dégg maam mu daal laal lu gàtt rek ñu déglu ko bismillah sëñ Njaga tafaddal mashkur alhamdulilah jaala rabbana تنزيلا عمري جزيلا dëgg la tey du lay jaara rabbana taala mhm. mudatan zila صليب خبي وسلام خلبه نعم من فديلا شيء أمد سبي نبي ولي مرسل أمي عرب وسيلا ما قام عنا سواه فضل بسا سابقا ووالا انت نور ربي وسراج ربي ورسول ربي أكرما بجيلا لك خدنا نسالا مالك جمالا خير من نسيلا ومزق فنوتيلا اهتديت عما تنتفى سلاما تقسم الكلام للهدى وعلا فجازاك عنا فوق كل منا من رداك خزنا ربي ساج سالا ربي سل على محمد وسلا من والي الأعلى سمن وآلة أكي جرجف أه kooku mooy sëñ njaga dégg ngeen sëñ njaga sekk mu ñàkk sikk moom moo doon yëkkati kàddoom noonu dégg nga ci ay nu nañ nga xam ne mooy sëñ moon jaay daabaay moo ko bind dégg nga di lu wér wax ci yoon ci bi loo xam ne sallallahu alayhi wa sallam kenn mën na ko wax ci sëñ tubaa dégg nga kon yàlla na nu ko yàlla fayal kon su ko defee dañuy ñëwaat rek dégg maam ci ki nga xam ne dégg moom mooy seen cheikh waaw seen cheikh loolu indil waaw li nga xamante ni moom laa leen indil mhm. sëriñ Basiiru Njaay mhm. ci laa bëgg indil mhm. leen ci tuuti waaw bismillah sëriñ Basiiru Njaay nekkoon na jëmm joo xamante ni nii ku lewet la woon nekkoon jëmm joo xamante ne nii ko amoon yitte lool ci jaam ñi mm-hmm. nekkoon jëmm joo xam ne dadaa wax naan sama taalibe kenn duyu ma ci mm-hmm. ngir rek eh, yéene ju mu amoon ci taalibeem mm-hmm. waaye noonu la meloon ba foofu nga ko gis ku mu fu mu masaan a dem ci ba eh, xew-xew boo xam ne taalibeem ma nga fa xewle ku baax ku mu fa dajeel muy nitu yàlla dina la ko cëral fab loola teg ko sa loxo waaye wax joojee da ko wax ngir wane ni rek lu taalibe mën a xewle mhm. dana moom sëriñ Basiiru dana dana bàyyi lu mu jàpp ñëw teew mhm. sëriñ Basiiru nekkoon koo xam ne ku mënoon a joxe la lool mhm. sëriñ Basiiru bu gàmm masaana dikk ba nit ñi ñëw di ko ziyaare mbooloo mii dañuy ñëw di ko jox àddiya mbooloo mi ñaari mbooloo yi ñëw di ko laaj est-ce que mu leen di jox. mu di len jox dem na ba bis mané ko njaay de ak mbax fune gis na fa mbax waye fi de mom mbax gu metti mom dal na mhm. te dama da tok mu di ma mhm. nit ñi ñew mu ne ma demal ci Amar Kebe bo demé ne ko na jox ñi ndawal. naka dana nu ray ay nak diko diko sam diko ko joxe diko ko joxe noné la serigne basirou dan dan def ak jàmm. deug la mu nekkon ko xamanteni ni euh ku ku ragaloon yàlla la woon ku bëri woon xam-xam nekkoon koo xamante ne nii këri diine yépp la am leen teeloon sëriñ Basiiru ay toolam sax bu ko masaan di baylu tiijaan ya ñoo cay man ndax ndax bëgg gunu ko bëgg waaw loole lépp nekk jukkoy sëriñ Basiiru dëgg la jërëjëf ah jërëjëf kon dégg ngeen li mu wax ci sëriñ Basiiru Eh, basir nak mom suñ ko tuddé rek xel yëpp day dem ci wayjuru dé ma sëñ muntaha Bachir wa koku moy bisil bashar mu bil bichiri basir la Nazir. moy borom mbég gu ñu mbég la ci mbég mbég mu and la coupé ba aljana ak kuma andal koku moy Baye Cheikh muntaha mbacke mi yalla fi yag tewer nga su ko nga inshallah allah nanu ñun no ngi ci koor gi japp nañ ne inshallah allah mëna mën def bu suba ñu wor muy subal tay ji no ngi nek tey la àllarba dégg nga di ñaar fukki fan ak weer ci ci mars dégg nga deux mille vingt trois waaye dégg maam di mille quatre cent quarante quatre de l'hégire loolu kon yàlla nu yàlla defal jàmm kenn ku ne war ngaa waajal dégg maam weeru koor wi te xam ne koor nag du xiif ak mar rek dégg waa wala lekk ak naan rek koor moom dëgg-dëgg dégg maam mooy ragal yàlla kon su ko defee dégg maam xanaa dañuy dellusiwaat dégg maam ci Amadou nga indil nu dégg maam gàtt ñu soog nga doog a dugg nag dégg maam ci waxtaan wi nag ndax temps baa ngi dem. waliyu nabiyun lil baraaya rasulu man mhm. bi li siwaana sa xasa sulmi wa ولي نبي للبرايا رسول من بيل سوى نازا خذا ظلم وزدوي ودادي لربي والمخفى ويسبه دقلا ومن حبهم والله لي كان بالعفو وسرت بباخ سرت عبدا لو به خديما لخير الخلق بالمكس شيء أرم رداء كل عدار يكلهم لأصحاب بمن قلبي هو يملهم إلى إرداء بالنبي خائد لهم سرورا متى بمدي مترهم أي بدي أدار آه. شعب النفاب إلهي لخير كل من ليس يبره أبلاه إلى كونه سيدا بهم وغدا وخلق فارا والكل جزهم وسعودنا للأداء مسابيح في دجاه وكل سجاء راس الكفر يجسوم أسود متي يغلهم سوء تجرين يبو جبان يبكي وما تجرهم أيا خادم المختار لا تنسى سبكم فمن يمسو الفلمر مدو المختوم sidqi wal wafaa rafiq nabiyil mustawa xaaraan ba dëgg la ababakir siddiqu cey soo sidqi wal wafaa dëgg la rafiq nabiyil mustawa mustawa cey Mustafa Mustafa Mustafa Mustafa xayraan bawum Abu Xabsin Faaruq sarwaawu naadirun bi tasadinun Mustafa ijisaasiw madinatu ilmin murtajan minnatun lana jariun wa munjin min sunubin wa min sulmi maalaaw أني بنبي كل فاسد وسرت بي عبدا خديما بلا خم من الله رب العرش أبخي صلاة بتسليمي للمستوى المجل اليمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تبارك الله تبارك الله آه، شيخ حامد غي آه، واخ دغ يالله كوكو موي مخدمات الامدا في المسايا مفتاح واخنا ني موم بوكو اوبي رك خيولي داي سوتيكو <laughs> واو جان كو رك كون ديري آه، جيف كون سوكو ديفه رك نوغي سياري واكرما الله جيغن di ñaanal alaaj munir jege yalna fi yag tewer dégg nga noonu lañ koy ñaanle dégg nga njaboot gi dégg maam sëñ Ahmad Ndiéguène ñëpp bàyyiwul kenn waaye kenn ku ne xam na ne waa kër sëñ Mor Ndiaye daa bàyyi dégg nga ak waa kër ma Alaaji Ndiéguène ñoom ñoo dëkk ñoo bokk te dëkkin wa rafet lool dégg nga kon tiijaan yi dégg ak ñoom ñi nga xam ne ay murit lañu seen dëkkin daa rafet noonu la ñu siyaare dégg maam euh, sunu xarit dégg Daam Ndiéguène dégg nga ak sëñ Cheikh Kañ Ndiéguène waaye noonu lañu ñu siyaare dégg maam mboolem waa kër gi yépp nag di di wax ne euh, kii nga xam ne moom mooy euh, sëñ Mor Ndiaye dégg maam kenn ku ne xam ko dëkk googu mu dëkk dégg maam waa kër ma alaaji ni mu rafete dégg nga kon tiijaan ak murit dégg maam seen diggante dégg yàgg na kon di rafet kon yow loo ñu wax seen Cheikh Ndiaye euh, ci diggante dégg maam Tijaan bi ak dégg maam murit bi waaw salaamaaleykum wa rahmatullah waaw lu ko euh, yàlla dégg nag waaw. Euh, lii nga xamante ni nii ci kaw waaw. moom nga wax ci waa kër maam Alaaji googu. Mm-hmm. Cheikh Mawne Ndiaye daa mm-hmm. bi mu fi dikkee. Mm-hmm. mi ngi dalak euh, maam Alaaji mun jigéen moo ko dalal. waaw est que. noonee la ñu dëkkee woon. ba Cheikh Mawne Ndiaye daa ni mu ni mu ni mu wutee këram googu. ci daabaay gi. diirub mu koy yor mu mu mu mu mu muy nekk foofa. bi mu bi mu këram gi yegee la la la la daal di dem sànci foofee moom seex Cheikh Moundiaye daa bàyyi. dëgg la mu nekkoon koo xamante ni ñu itam ñoom maam alaaj mu jigéen yàgg naa di ñëw di seet si Cheikh Moundiaye daa bàyyi bàyyi di ko gunge di di ànd moom di ko gunge. Mm-hmm. waaw euh, ku ñuy wax Serigne Malick Guèye. Mm-hmm. nga xam ni doom la ci Serigne Alioune Guèye. Mm-hmm. itam Serigne Alioune ku ne xam na ko ci Tidiane nga xam ni. moom euh, maam moom moo ko euh, def mu xaddam mhm. euh, doomam jooju ni ñu wax nag euh, sëriñ Malick Guèye nga xam ni borom xam-xam la bu fees dell bëri na imaami jumaa yu nekk fii ci biir kees tey jii moo leen jàngal ak fudul fudul kees mhm. sëriñ Malick Guèye moomu way seex Mor Ndiaye daa gis Cheikh Mor Ndiaye daa bàyyi yéemu ci moom ba way ko ay way mhm. daal ni ko nag li seyxi daa bàyyi fii dë bay yi am daaxun njagalum ci wax mu ni ko li say xi daa fii dë bay fi am daaxun seex daa bàyyi day ñaari mbaaxam yi am na ci aw tagg mbaax xam mbaax ci wàllu àdduna ak mbaax ci xam-xamu wàllu àllaaxira benn bu ci nekk da caa géeju xam xam ca ba fees dellu moom seex mu njaay daa li seyxi daa fi daa bay am daaxun daabul luloomi wa daabun li mu ni Seex Moon Njaay daa ñaari wàll yi benn bu ci nekk am na ci tagg muy xam-xamu àdduna ak xam-xamu alaaxira benn bu ci nekk am na ci wàll moom Seex Moon Njaay daa am ci tagg mu ni Cheikh Modou Ndiaye daa bàyyi nat bun sang la xawaa wasa kulla xarin su karamin làq na melaw wépp waaju baax te nekk borom teraanga way matin dunaha dëkku san baa nee na ittee Cheikh Mandiaye Dabaye boo ko bëggoon a lim daal nga nooyal doj ci àll bi nee na moo ko gën a yomb. mu ne Cheikh Mandiaye Dabaye diine Ibrahima xalilullahi la yor ibaatul kalimi la woo dëgër gu yent yàlla Moussa kalaamullahi la yor. hidayatul mustafa uli dalalaati nee na na muham nee na njubug yonent muhammad ga ak nam doon jubalee aw xeetam sama njaay daa bàyyi noone la doon kii ndax diinul xalil ibn sulma ibrahima xalilullaay ba nga xamante ni nii noon ya fab nañ ko di ko tànnal ca mbëndug nam ruusa di ko ca tàbbal Mm, sunu borom mu ni sunu borom daal ni yaa naaru kuuni baran wa salaaman ala ibrahima Cheikh mm-hmm. Mawne Ndiaye daa bàyyi diina jooj la yoroon moo waral ba nga xamante ni dem na ba néegam ba di tàkk ba jën ya xonq coy mm-hmm. taalibi yi wër néeg ba kenn ñemewut a dugg ñu wër néeg ba ginnaaw ba Serigne Basiru moo ñëw fekk ko ci biir xëcc ko di ko génne te booba Cheikh Mawne Ndiaye mi ngi lañ lañee téere yi ci biir tàkk-tàkk ba jën ya xonq coy naka la ko sëriñ Basiru génne rek néeg ba daal di bëpp kon diinul xalil yi moom la yor mu ni ibaatul kalimi la hoo dëgërug yent yàlla Moussa kalaamullaahi ga moom la yor ba nga xamante ni Moussa noon ya ña ngi koy dàq ba nga xam ne jub nañ géej gi ñu ni ah ñun de ñu ngi jot musaa di leen déedéet kenn ñu ndax sama borom moo moo moo muy jubal ibaatul kalimi Hmm. moo tax Cheikh Mandiaye daa bàyyi ca di eh, eh, diinul xali ibaatul kalimi googu nga xamante ni nii Cheikh Mandiaye daa daa wax naan li ma nekk bu ñëpp demoon bàyyi ma ma des ci man képp wala wax di donte man képp la maa dumtu xayyan fekk maa ngi dund. mu ni hidaayatul Mustafa uli dalalaati njubug yonent yàlla Muhammad googee njaga jaal ma ci njub ga mu ni njubug yonent yàlla Muhammad googe moom laa la moom moom daa dajale tegtal yi moom Cheikh Moussa Ndiaye daa bàyyi dàq na réer Cheikh Moussa bàyyi nekkoon na koo xamante ni lam daa wax daa wax naan hee fa seexul xaddim fa rasulullaay sama sang ba tegoon tànkam day te teggiwu ko seexul xaddim bi mu ñëwee dafaa teg tànkam mu yem ca képp teggiwu ko ma it bi ma dikkee dama faa yem sama teg sama tànk mu yem fa kepp te du ko teggi hidayatul musaawul dalala mu nu njubug yonent yàlla Muhammad googee nag noonee la la ànd ak moom looloo waral sax sax mu njaaraabay indi firnde daal ni maaytu rasulallahi diinan wa muhtada ma ànd ak rasulallahi ci diine akuk jubal wa xalban ak ci ruux wa xalban ak ci xol wa ruuxan ak ci ruux suma siran ci lu nëbbu wa jasada aku yaram kon njubug yonent yàlla Muhammad ja feeñ na foofu continue te ja tiijaan ba di ko way ba naa ko yaa xusna markaahi way naa boroom rukon yu rafet yi wa tiiba masjidihi ak jàkkaam ju teey ja nga xamante ni nii jàkka ja Cheikh Mandiaye daa bàyyi dadaa wax naan sama dërëm sama dërëmu taalibe moom loola nee way naa ba way ña nga xamante ni ñoo topp ci ginnaawam julli ci asru ko nga xam ne Cheikh Mandiaye boo gisee mu way ko loola ci julli na Cheikh Mandiaye masaan di julli man ngaa jóge daabaay dem ba marché dellu si te du tax julli ga àgg am na benn borom watir bu dikkoon fekk ko muy julli mu ni naa barkeelu ci julli ga ba mu kàbbaree kabbar taxaw di xaar di xaar di xaar ba yàgg borom watir ba dagg julli ga yëg ca watir ba wuti dem continuer marché yóbbu client yi ba mu demee ba dëpp fekkaat Cheikh Mandiaye daa bàyyi ci julli ga kon julli Cheikh Mandiaye daa bàyyi gaa ngoog xos na marka ay yi lay sunu xawar kulla martawasi baalu bihi mu ni Cheikh Mandiaye daa bàyyi lay sun gaynde la goo jigéen goo xamante ni xawat làq na kulla maxtawa li mu làq lépp ak sibaalu mooy gaynde yu mu ni daal Cheikh Mandiaye daa bàyyi ay mayam daal xotti na aada cey waaw tutal bilaada bilada diini xaatibatan nee na day Cheikh Mandiaye Dabaye yow wër nga réewi diine yi mboolem seen yow Cheikh Mandiaye Dabaye wa bayta rabbika saban bil maqaamaati mu ne ko sa néegu borom bi de juróom-ñaari place yépp taxaw nga fa yow borom Dabaye wa bita mutakifan lillaahi mutaidan nee na wa bitta fanaane nga mutakifan di li'tikaaf lillaahi jëme ci yàlla rek mujtahidan nga farlu ca lool yow borom Dabaye foofu daf fi daa moo tax mu daa wax taalibe yi naan leen man day lii may ànd ak yéen di ko def dama leen yërëm rek waaye su ma duggee ci biir dinaa def lu ëpp loolu ci wàllu jaamu yàlla ñim daa mu ne ko day yow day jëf nga rafetal nga taxawaay bi yow borom daa bàyyi mu ne ko yow yëkkati nga kenu diine nga dundale ko jaamu yàlla. mu ne ko yow day way ñàkk yi lele nga leen ndax ajuma ju jot yow seex Mandiaye daa bàyyi daa nga joxe cent kilo ceeb ak junni ca ca booba jamono. akramta lil kuramaa. nee na ko way tedd yi day teral nga leen yow borom daa bàyyi. yow day talil ulamaa yi baxrul farida. mu ne ko day boroom xam-xam yi jubal nga leen yow daal tànneef yi yow yaay seen géej. mu ne ko ñaar yii day mooy yam ci ñun yow mi nga xam ne yaay sunu nattuwaay. mun nee na ki nga xamante ni dafa dafa jub ak ki sàkkoo jub ñoo ñëpp yàlla musal na leen ci ay musiba. ka am na asrata saasaay xaaymatun mu ne ko day dafa mel ni rek saata yi ci waxtu wi dafa teew. yow borom daa bàyyi nga nekk mahdi yu ba ci bépp aaya yow borom daa bàyyi mu ni li may wax ragaluma ci yaddaangeel sunu borom man man Serigne Malick Gueye mu ni ko ni ngay jubalee ci sariya ci guddi yu lëndëm yow borom daa bàyyi nee na ko ñun ñooy sa xusaan saa yoo xamante ni dem nañu ba gémmiñ yi lu ba kenn amatul lu muy wax su boba ñu ñoy nek sa xosaan di la layal yow su boba ñu ñolay layal ci ci non yi mu ne ko dundal nga ak dundal nak ci ci diine yalla yi mu ne ko dundal gi nga ko dundal day dem nga ca ba làq ca nag la noox dundoon texeel la mu la mu texeel ci ay jaam yow li nga dund sa dund gi gàtt waaye texeel nga ci loo xam ne ëpp na loola moo tax mu ne ko ca biir ah, haasi yi xasidatun qaalaha oustaz alhaaji malik fi madxi seyxi l islam hmm. lii xasida la goo xamante nii ku ko bind mooy oustaz alhaaji malik waaye tagg ci seyxul islam muy sëriñu islam bi wa xujjatihi ngir layal ko al mawlaana di sunu kilifa di sunu sang ah Cheikh Ahmed Ndiaye daa bàyyi laa yazaalu du dañ mukk yarqaa di yéega yuusalu ak di jotale di àggale almuridiina way namm yi ak suñu borom ilaa hadratil muraadi ca péyub aji nammu ja foofu la googu kay ah kon day dégg ngeen taalif boobu taalif bi day tege na ci yoon bu baax a baax a baax sëñ Moon Njaay daa li ko wax rek dégg maam ci lu baax rek des na dégg nga ndax bëgg sëriñ Tuubaa dégg nga doon taal bi sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa seexal la loolu doy na cër du dëgg kon su ko defee rek noonu la ñuy siyaar noonu lañuy ñuy sante bu baax a baax sëñ Cheikh Ndiaye ci leeral gi ak sëñ Njaga seen ànd bi neex na lool tubaarkalla dégg nga su ko defee dafa mel ni ñu wax ne ma waxtu wi daa jeex waaye dama wax ne euh, noo ngi sant bu baax a baax sëñ Cheikh Ndiaye mu sëñ Fallou Ndiaye daa baay mu sëñ Moon Ndiaye daa baay dégg nga di suñu xarit di suñu lépp nekk fii dégg maam ci Daaru Rahman fi ñuy wax ci Jacques bi nga xam ne euh, ñoo ko tuddee Cheikh Fall Baye góor dégg nga di way juru dégg maam sëñ Cheikh Ndigal Fall Cheikh Fall Baye góor maam Cheikh Ibra Fall mu daggal ko foofu jox ko ñaari hectare dégg nga mu ne fa mu ngi fa dëkk dégg maam ba pare def fa jumaa def fa lépp dégg maam di jàmbaar lool am jëwrinam dégg nga bu ñuy wax sëñ Ahmadou Ñang dégg di commando sëñ moor Ndiaye Daabaay dégg nga ñu koy sant di sant des maam waa daayira ba yëpp di sant des maam mbooleem koo xam ne kii yaa ngi ñuy déglu waaye di wax ne rek danoo bëggoon a jox sëñ Ahmadou dégg ndax waxtu wi nee nañ jeex na daanaka dégg maam waaye sëñ Ahmadou da ngay tëjëg tuuti dégg maam euh, donte xas de rek su ko defee dégg maam ma ma tëj tëj euh, kii bi dégg bismillah ndax temps bi moom moo gàtt dégg maam te xam naa ne dañuy bëgg a indi léegi kii bi nu mu tudd journal bi waaw jërëjëf Baye Seynou. Mhm. naa bala maa yëkkatiwaat rek. ma la bu baax. waaw waaw comme ni nga ko waxee rek. waaw yow sunu sunu jur nga. wallaay dëgg la di kenn ci ñun. wallaay nga xam ni yow sa mébét. ak sa sa li ngay dox lépp rek mooy. képp koo xamante ni mu ngi ci dëkk bi ah, di di di yëngu ci xasida. waaw wala ngay tagg yenent bi. sallallahu alayhi wa ci foo ko foo ko mën a jaar. xalima boo ko mën a taggee. wallaay boo sañoon àdduna ñëpp dégg la. wallaay dëgg la ci loolu ngay dox. saa su ne ñu ngi lay siyaare bu baax di la ñaanal saa borom gën la fay yàggal te gën a yokk sa wér di siyaare bu baax Serigne Cheikh Ndiaye Mbour mi nga xam ni mm-hmm. Mm-hmm. sama teewaay fii moo ko moo ko waral dëgg la nga xam ni moom day kenn ci man mm-hmm. yàlla xam na ni damaa génnoon sax waaye bi ma ko waxee rek fekk fi ma demoon nii ma jàppoon ko bu yàgg waaye ma ne ko incha allah lu mu xat-xat dinaa ñëw ànd ak yow. dëgg la muy kenn ci man di ku baax lool oo dëgg yàlla ku rafet xam-xam dëgg la ñu ngi ñaan saa borom ah, taw feexal la nga yeggale ak sa sago hmm? barke sëñ Tuubaa xasida jërëjëf di ziare baax Serigne Ndiaga di sama xarit moom it kenn ci man ñu koy nuyu baax di ko ziare di ziare mboolem ku ji koy bàyyi xel jotaay waaye di ziare hmm. ah, ñaan yàlla saa borom yoonam yegg ba fépp fu mu bëgg a yëggale liggéey bi saa borom carte nan ko ba mu yegg fu kaw njortam hmm, barke sëñ Tuubaa tàggoo rek tàggoo dul su ko defee yow yaay rek incha allah. Mm. waaw jërëjëf. waaw ah. euh, sëñ Amadou moom it mm-hmm. di jaar baax suñu wëy. dañ ko bàyyi benn yoon wala ñu ca rajo. sëñ Alim Badara Seck ak soxna Ndiaba Thioune. Mm-hmm. soxna Daba Seck. di suñu maam ak soxna Ndeye Rama Thioune. loolu di suñu maam di koy dëgg la ak suñu Xaadim Seck suñu mag nga xam ne njàng mi moo ñu fi dëgg la ak jëru ñi nga xam ni daañu ko ànd ak ñoom ci daayir ba tey ñu agsi fii yëpp. lu jiite loolu nag di ziar euh, comme ni ko suñu Cheikh waxee suñu xalifa bi Cheikh Habibou. nga xam ne dimanche passé rek lañ def ziaram. Mm-hmm. ñëpp daje fa. Mm-hmm. jàng fa ay xuraan ak nayim doxal fa diine. dëgg la di ziar baax di ñu ko nekkal fii suñu Abdou Khadir Ndiaye. Mm-hmm. ak suñu Abdoulaye Rakam. ak seen Cheikh suñu Abdoulaye suñu Bassirou. dëgg la di ziar ak suñu Alfane ñëpp. jërëjëf jërëjëf kon sëñ Cheikh Ndiaye dégg maam buur kon na acca bismillah kon tàggoo bu dul tàggoo rek xam naa ni waxtu bi comme jeex na waaw kon day ñoom beneen yoon rek xam naa ni moom li nga fi war a wax moom xëju fi hmm. <laughs> waaw bismillah ah kon noo ngi sant waa Cuuneen hmm. di sant soxna Daba Seck hmm. soxna Ndey Rama ah, ak njaboot gi Cheikh Ndiaye Cuun ak ah, soxna Ndey Cuun ah di santu itam wax deug yalla modou mbake ak Mor Mbay danaka nga xamni ñaw bi ñom ñoo fi jaar est-ce waaw di sant itam soxna ndey mbuba mi nga xamanteni itam moma jox tisi bi waaw mom itam non koy sant bu baax kéro ba ma fiy ñëw it la defoon di sant borom kërëm basirou gey deug la di sant Cheikh gey ah di sant itam soxna Awa mi nga xamanteni ni mo jité conseil départemental nga xamni ni ñoom daanaka seen safar gële sax man malin leen ko non defal mu nek soxna su baax. waaw nek ko xamanteni ni wax deug yalla ku mana rafetal la ku mana taxaw ci yitte yi ñimu jaboté di sant itam ñimu andal ñepp ak señ biram euh, di sant itam euh, Basiru Basiru yad mom nga xamanteni ni itam ma nga nekk sofra ko di sant euh, Cheikh Ablaye Guèye bu jaxaw di sant itam. Euh, euh, euh, di sant Jiili tuuba Tisi di sant Mamor tamitam ñoom ñëpp ñu ngi nekk marché central. waaw di sant ñëpp. waaw jërëjëf kon jërëjëf kon su ko defee rek sëñ Cheikh Ndiaye ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm dégg nga ci plateau bi nga xam ne bi leen wooyee ngeen ñëw nga ànd ko Cheikh amadu Guèye xasaayit ngeen ànd ko sëñ Njaga dégg nga njàng mu neex mu ngeen jàng ak yëpp dégg maam kon su ko defee ñoo ngi leen sant di leen gërëm di wax ne noo ngi sant mboolem ku nu seetaan waaye di wax ne noo ngi siyaare bu baax a baax dégg nga waa États-Unis d'Amérique Ibrahima Dramé dégg nga ñi ñoom dañu seetaan émission bi waaye ñu ngi siyaare tamit dégg maam euh, waa itali dégg ma Jibi Ba dégg ma ak waa français Awa Balla Mbàkke si dégg ma ak soxna Fat si di siyaare tamit dégg ma am soxna Awa Keita noonu la ñuy siyaare dégg ma waa Espagne dégg ma am soxna Jëmb dégg nga ak babu Jémme noonu la ñuy siyaare dégg ma mboolem fu waay mën a nekk dégg maam ci réew mi rawatina Thiès gii dégg maam daayira Nihmatu Rabbil Alamin dégg maam di di nga xam ne ak daayira sox maam jaara seen Aline mbay dégg maam ak dégg ma Baye Saliou Ndiaye ak ki nga xam ne wali Mbaye mu Ndiaye Mbaye waliyu dégg nga ak bisam mu doon def ci turandoo sëñ Saliou Touré yi dégg maam lépp jaar ci yoon dégg noonu la ñuy siyaare dégg maam soxna Ndey Diouf mi nga xam ne mooy jëwriñu daayira ba dégg nga di ko jaale dégg maam waaye juróom woowu nga xam ne dégg nga moo wàcc liggéey ca gàññik dégg bi dégg maam ah, Diouf yàlla na yàlla xare ko àjjana noonu lañ koy jaale maam biram Diouf noonu lañ koy jaale dégg maam ah, Cheikh Mbacke dégg maam ah, Diouf ak ki nga xam ne kii dégg mooy Habib Diouf ak njaboot yëpp dégg nga ba ci Moustapha Diouf ñu ngi leen di jaale dégg maam sunu baay boobu euh, ak ñoo ko bàyyi dégg maam bàyyi wunu kenn dégg maam ci bokk yi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana bi say Seydi Wuso noonu la ñu siyaare mbooleem dégg maam di wax ne nag fulku bi mu ngi ñëw dégg maam ñun ñëpp ak yéen ci fulku bi dégg maam fulkul masoon di ñaan koor gi ñu dugg yàlla na ci dugg ci bismillahi rahmaan génn ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci àddina si yëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon bismillah mm-hmm. كلام قديم لا يمال سماؤه امين وعي امين امين تناسى عن خول وفعل ونية بي أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبهم دجال وخيرتي آه، فيا رب ما تخني بسر خروفه ونور بي قلبي وسمي ومخلتي اللهم يا رافع يا زاري يا معز يا حي يا قيوم يا وهاب يا رزاق صفاتك العالية أن ترفعني مكان عاليا ما أسن سر تام على سامي كل ما العافية دائما دائما ndimbal ak yërmande aajo faj mbir ju gudd fan ak wér ak wér la barlay barkee la barke borom Tuuba riddan wa rahmatan wa barakatan xus xusut xasar. رسول عبد الله وهو أحمد قديم من تماد محمد يا خول عبد الله وهو أحمد بسم الله الرحمن الرحيم